bul fàtte ñaari affaire sama waa ji dafa gagné au premier tour cinquante sept ou cinquante huit pour cent cinquante huit pour cent laa la wax de loolu la gagné. ak ñan. cinquante huit pour cent avec la coalition et les sénégalais def ci am des gens qui sont qui ont été des électeurs de Macky Sall qui bokkuñu benn parti sont pas de l'APR ni de l'AFP ni du parti socialiste ni dans une aucune comme parti. ak ñoom Aminata Touré. ku muntu doon rek. dama lay wax benn affaire ama ne. ñoom Amadou Ba non xaar ma wax la rek. ak ñoom Matar Cissé. ak ku muntu doon. oui ma ak ñoom Aly Ngouille Ndiaye. oui je suis d' accord avec tous ces gens là on a gagné cinquante huit pour cent ñu élire la au premier tour. nga nekk waaw nekk président de la république. li ci duggal Idriss Seck foofu question boobu nga ma posé ou pas. boob laa la posé waaw. Ah. dama lay wax d' abord ni sama waa ji mel. quelqu'un qui a gagné aux élections présidentielles au premier tour pour cent avec sa coalition oui du tout je le dis parce que lui son bulletin de vote s'appelle Benno Bokk Yaakaar Benno c' est une Oui. C'est pas honteux d'avoir un parti de gagner avec une coalition quand on est en politique. D'accord. mu gagné au premier tour woote dialogue Macky Sall woote dialogue laa la wax et encore malgré il a gagné au premier tour des élections présidentielles il a la majorité à l'Assemblée nationale ñaata député fa nekk les cent trente au moins ou cent trente et un sont dans Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ne les décisions yi muy jël au niveau de la présidence loi bu mu yóbbu dinañ ko voté ba mu saf saf indiwaat ko mu promulgué ko donc majorité bi gouverner ak majorité législative lan moo ci dugal Idrissa Seck oui mais ça on est en politique Pape Ngagne Idrissa Seck ak Idrissa Seck moi wax dëgg yàlla naw naa ko ci bii action man parce que réew am na fu muy toll on ne gère pas les intérêts Idriss Seck pouvait dire que je suis un opposant. Depuis combien d'années il est dans l'opposition Pourquoi Il pouvait continuer d'être dans l'opposition radicale. Mais il a d'abord de faire Réumi. Mais d'abord normal. Laisse-moi terminer. Euh, non, laisse-moi par exemple. Par exemple, opposition bi. Opposition bu amul ci réew, ana démocratie. Ma xaar la, il y a d'opposition il n'a pas pris toute opposition def ko ci parti bi ou def ko ci coalition bi il y a des gens toujours qui sont là dans l'opposition am na ci ñoo xam ne sax soxlawu leen koo xam ne des gens qui ne peuvent pas gagner des bureaux de vote là où ils sont investis comme tête de liste des législatives ak yooyu tu ne peux pas gagner ton bureau de vote du ma tudd ay tur maa ngi xaar euh, loolu boo ma ci posé question yooyu yaa jiitu émission bi non xam nga ne ah, ma aimé la façon d'Idrissa Seck man sama xalaatu bopp man nit am na fooy toll bu dee. réew mais kon ki ngay xas noonu tey bu jëloon mais ki ngay xas noonu tey bu jëloon décision bi Idrissa Seck jël nga ànd ak moom. waaw laisse ki ngay wax noonu que Macky Sall soxla terminer vous m'avez posé une question laissez-moi le temps de le répondre politique dafa am bu jotee dañ koy def ba mu saf sap lu mu ci ñu def ko mais su jeetee dañuy tourner page d'abord ne Sénégal. mais boo buggee prendre toute ta vie di ko politiser et ouiller le Sénégal nga absenté Sénégal booletoo Sénégal ci sa biir programme yow sa doxalinu bopp rek ak bëgg a jiite rek mooy sa combat et sa veut dire que loolu est-ce que un homme politique c'est ça c'est comme ça qu'il doit se comporter. du tout jusqu'à dàq Aminata Touré. non jël place am jox ko Idrissa Seck. bul nee dàq. jusqu'à dàq. dàq amu ci ma ne dàq amu ci c'est pas